combat Modou Lo ak Siteu taxaw na mais loolu nan la mën nekkee Siteu nan la mën a bëree ak Lac de Guiers dem stade yokk doole Siteu gisante ak moom conseiller ko ba pare tourné waat di bëri ak Siteu xool làmb koona nag man fàll ku ma yeewoon ci digg nelaw ne ma jamono ji Modou Lo ak Siteu dinañ bëre ma ne la déedéet sama gars yi béggee naa leen j'espère que yéen si jàmm merci demee la vidéo ñëpp xam nañ ne fan su Modou la Modou mënul bëre te man fàllu du ci wax combat bi dama ciy takk rip ba ba muy jeex aimez la vidéo ngeen partagé bu leen fàtte yéen ñu sewoon si benn mu ngeen commentaire parce que dama seetaan benn émission boo xam ne Petit Lo daf ko def ñu laaj kon combat Modou Lo ak Siteu ndax dina am xool leen mu tontu. dama gis dama gis benn combat man combat boobu dama ko bëgg. muy Siteu ak Modou. Siteu ak Modou mais Siteu ak Modou man moom loolu mënu ma ci wax ndax foofu saa mboq mboq xas na fa dugg quoi. et foofu moom su wax lu rafet. du ma si wax dara ko wax dëgg. kon yow boo boo bokkoon ci ñuy ci ci staff bi ñi ñuy laaj wala Modou ñuy laaj da bañ boobu combat. non mais loolu du combat sa foo xam ne mboq gi xas na ba dugg nag sa tamit. yow magu Siteu mooy seeg raqu Modou Lo et foofu dara xaju fa foofu làmb xaju fa saa waay carrière démb mi ngi woon si cumbukaay Modou magu Siteu boobu mi ngi woon si cumbukaay Modou eh, foofu dara xaju fa quoi gars yi xam rek des fois seen yaram mun na tàng wax ñu wax ay Modou Lo nii Modou na ñëw. mais où e la logique que Modou nan la mën a daanee Ama Baldé pare daan Boy Niang ba pare tourné bëre ak Siteu. non combat bi nar na ko nag ñaari mboq ñoo nar a ba pare ñaari mboq bokk ay supporters. man Fallou leer na ma ni fans Modou Lo yu bëri ay fans Siteu lañ mais aussi fan fans Siteu yu bëri ay fan Modou Lo leen Modou sax confirmé na ni Siteu mboqam la na xool Modou bi muy wax Siteu que ni mboqam la ba dugalaale ci baatu sariya yi waaw Siteu magam kader ñom seen papa yi ñoo bokku nday ak bay kader yaayam ak suma yaay ay bokku lañu ba pare kader mo mo tak tay suma rakk bu jigen ñu wax wax lo xam ba taxna na euh, Cheikh Omar Fouti Tall dégg naa ci bindam daka daan tay mbokk deug deug moy sa mbokk sa sa mbokk julit yi top neena sa mbokk mu dugal ci sariya sa do na ay fi nga taxé soxna it ay mbokk ngeen. parce que deret bu jaxasoo rek mbokk ñëw na. mbokk ñëw na ñu ma la wax kii mu bokkal kii seen ñaar paam yi bokk ndey ak mooy denc suma soxna te yaayam ay mbokk lañ. combat bi nar naa ko. mais sama gars yi Modou Lo toog mu ne du bëreeg Siteu Siteu aussi musul toog mu ne du bëreek Modou ba am na benn interview boo xamante ne dañuy laaj Siteu ni ko ba xam da ngay bëreeg Modou wala doo bëreeg Modou waxul tooy na wala wow na dafa mel ni combat bi dafa yëgoon ni day am du ci bokk. non Morlo sama grand la ba tey relation bi ma amoon ak moom mu nekk relation bu rafet. ba hmm. suba ba ginnaaw suba. et fu ma ko fekk moom lay am ci man te noon laa ko yëkkatee parce que cër boobu la ko yàlla jox. Hmm. waaw mais dafa am côté boo xamante ne tey man mënuma si di xuus comprendre nga. waaw. Hmm. te gis nga ni tey doo tagg tey suba nga xalab. waaw man du doxee noonu. waaw parce que damay jéem a sama. sama sama sama jikko sama jikko waaw mm-hmm. sama kàddu gor mm-hmm. bi ma am waaw parce que nit am na lu bari lu nekk ci yow mm-hmm. mais nee nañ qualité yu baax yi nekk ci yow da nga koy jéem a sàmm di koy téye waaw bu ko nit yàqu rek bu ko yàq maanaam doo bëreeg moom doo waxuma la ay du ma bëreeg moom dinaa bëreeg moom mais dama la ne sama grand la boo xamante ne fi ma tolloon ci moom si cër yaa ngi dégg ba tey foofu laa toll waaw dara du ko dindi parce que dindi wu si dara waaw tarki ndaa am ngeen combat nag si te am nga combat mais làmb ji ñëpp nee nañ amul logique mais làmb si boppam moo amatul logique bu ñu demee ba sarko sarko mën na bëre ak Balla Gaye 2 daan ko suba mu dem jël yaaw jaal moom yoonam nekku si mais nag su ma xoolee ba xool dama naan Modou Lo saay-saay la quoi parce que Modou gis na ni Siteu mi ngi bëgg a bëri Balla Gaye combat bi waxaale yi di metti fii metti fee bëgg na bëreeg Ama Baldé waxaale yi di metti fii di metti fee Modou Lo xool Siteu xam ne kii nii raqam la <laughs> mu mu bëreeg moom. mai ka sans me sita am nga combat de tarkindaay ye da me sita am ngeen combat Siteu baa doo dem ba ci signature contrat bi di def li ak mourlo Lo ba da nga ne yaa ma ëpp doole yaa ma mën arbitre bu sifflé di nga ñew sama kaw wala da nga ci genn yow yow laay laaj ya ngay xef ni billahi dama la yeureum yow mi la yeureum imagine toi ta jaxalo man gor la bu ma yërëm <laughs> eh ay baax na yooyu indi wuñ fi de Mansour dañu wo fi pour ñu jaay bis bi pour amateur yëpp génn lool mo tax ñu woo ñu fii da may wax lu leer ma wax la lu leer man dawuma ci yow sala yaay ndeer tegal yar gi rek ibu yaay ndeer dawuma kan lan tekk tegal yar gi rek yar ban tegal yar gi rek eh gis nga loolu gi ngay wax noonu koku du man yow ay sita ngay wax ay sita yaru man eh mbeur mi mo ñew di wax ak yow sita boy signature contrat ak Modou indil si tabi bul indi mbeur bi ma la ko ñaan parce que buy bëri mullo la dal essay ni lamb ji dal hein ah, se comprend pas quoi mais lamb ju neex amna si ta da nga xamni sa mag ngay bëri dang ko jox respect jox ko nank salam salam mulu dan la après mom kenn dootu la bañati mom waaw lii moom dama ne woon mënu ma cee bañ a wax fa wax ci aimer aimé leen ngeen partagé euh, mercredi ngeen xaar bette bette euh, analyse bi.